a ah, man maa ngi tudd Habib Mboup waaye ñu ñu ma commonly known as ah, Habs Habs waaw Habs ma bëri xamee waaw ñeneen sax naa yu noo dinañ jàng tur bi fi mu nekk waaye all my sporting career my childhood you know ak ma dunda si sport yëpp Habs lañ ma commonly xamee waaw. oncle Habs ah, kontaan nañ trop ñëpp waxtaan ak yow. gis nañ ne dëkkandoor nga ak biiri Gambia tey ñàkk na legend great player lañ tey mun naa ne Gambia mun naa ne àdduna bi ñàkk nañ player tey ku ñëw wax muy biiri biiri na mun nga ñëw wax kan mooy biiri biiri waaw dinaa la gën a confirmal li nga wax noonu leen ah, Gambia ñaaka nañ waaye biiri you know international bi Gambia ak international bi ñoo ñaaka diaspora bi am nga dem America Italy Europe you know dem rek sub region bi senegal Guinée ñëpp dañ xam biiri biiri kay foog na you know you know not Gambia rek a ñaaka waaye dëkka yëpp dëkka yëpp xam nañ biir biiri is noonu bi fu nekk fu Gambia nekka rek kon yow yëg nga ne ñàkk nañ Gambia ñàkk nañ Ely Dieng waa biiri nag moom suma moom ndeysaan yow he was naturally gifted ba pare dafa natural dafa am si yoo xam ne is God gifted moom he was God gifted ah play na I was lucky pour ñëw fekk si game bi ba player moom you know ma nekk midfield player Walidaan moom mu nekk striking force waaw moom suma man dañ jànga ci moom lu bari. waaw definitely am na benn match sax ñu maa génnee because dañ ma ne dama seetaan biiri mooy ñu ngay doon play ak bi 1901 mooy noo know Dennis team bi ko fi génnee woon waa ñu ngay play waaye man second half dañ ma génnee because definitely dama ko doon seetaan ni moo def ci biir tubaab yi yow ñii nga roman ni yow ma di am nga leen ñi nga jot a jël nii ñooñu deekan toog moo dan man ci biir ñu dañ ñëw rek fekka leen rek gars yi lifin ñëw no waaye biiri moom biiri moom definitely he was a naturally gifted player am na dëkk yoo xam ne sax dañ bëggoon sax mu nekk seen nationalité dëkk boobu like Sénégal di ko naa you know Sénégal stars naa you know uh, ñoom Laurent Poko play naa ñoom suma ay you know ñoom in uh, Serif Souleymane ñoom Petit ñoom Jolia ñoom Kolev ñoom Kalva ñoom Edante ñooñu ñëpp guinéen si buñ déggee xam nañ ñoo ñëpp biir nga dem mali plee naa fantamadi fantamadi jara fantamadi keta ñii ni ñëpp biir yi kay moom lijal la rek ba pare dafa def something wax dëggaane yàlla dafa sigil gambia sigil gambian dega-dega, definitely suñ bëggee wax si biir yi du mun a jeex biir yi because génération yu bari laa lifin ñu dañ ñëw fekka leen fekka ñi nga xam ne ñoom la bokkal génération dem nañoo moom they can tell you more of Biri ñun mi ñu sax toomee jël ci ñoom ñu teete ñu ñun suñ waxee sax we can talk a lot also waaye ñoom ñoo gën a mun a wax si Biri ñoom kay gis loo dama ñëw rek ne la yee people ñi nga xam ne ñoo mun a wax si Biri ñu ngi nii muy Pa Modou Fall muy ñoom Toto Eh, ak ñeneen ñoom Alaaji Jaaro Toris ak ñoo ñëpp léet ñoom manga you know xam nga man nag man dama I was I play for police boobu maa ñoom Ndaw Njaay la woon Hector ak ñoom Cheikh fay then you know Brahma Jaite was our post after bi ma complété police li I switch and come to Walda lii laa fa feeta ñu teete ñu indi ñu si living bi ñoom yuuti fële you know some late friends o oh, yes biir kay moom wa dëgg ne yàlla di nga gis ne biir doo ko jeexal biir yi doo ko jeexal Gambia loos nañ oh yes te du Gambia rek sub region beeg Europe ak you will it you see it oh yes biir kay fi ne pare ñu ngi itam sayt itam lay jaw lay jaw mooy that uh, Senegalese journalist reporter he is very concerned on biir yi xam na ko gis na ko xam na ko xam na lim def xam na lim dundal oh yes ku bugg a biiri la ñu ngi koo gërëm because he took lot of biiri definitely definitely wax dëgg mu ko feejal in Sénégal biiri foo dem rek koo taalal micro mu wax dara si biiri muy Afrique muy Europe muy Amérique muy ñoom Tijaan a nga fële Cissé ñooñu ñoo ñu ngi indi seen ba pare mu ngi am benn friend am boo xam ne loos na every time mu ngi fii te kooku he was a player in Sénégal mu Yamagor Secka Yamagor waa Thiès la moom yaa ngi am ñoom sumaay euh, boy bandi ñi ñëpp dañu am biir yi mooy gars yi Sénégal yi koo ci wax ñoom Sega Cissé Sega Sakho biir kay dëkk boo dem rek koo ci wax mun na la wax o oh yes definitely biir moo tax ne la fii ñaaka nañ waaye ñeneen ñi ñaaka outside dañ bari sax. nga ñoo wax laas gi moom booy mun a fàttali ko si biir ok léegi dama laa jox benn game bu ma soxal dëgg sax mooy ñoo bii wan oh benn Dennis team Dennis team bi daf fi ñëw. Ah, with the invitation of Walidan legi, legi, Biri dafa war a tennis team B bii 1901 dafa player B 1901 against Walidan score Walidan second half we change Vesam solve wal besi Walidan score B 1901 the other play is against Real Got two friendly games am on. We play solve besi B 1901 score Real ce qu'on a mouchimé au sol versé réel. So biri biri dengan waru biri is a is a legend a surprise legend. Bo oh, hamni bi oh Gambia liñ amon <tsk> ah dina jafé amde, de wax deug dina am. Bu paré fi bay record. Oh yeah daf fi bay record daf fi bay record. Mom kay duñ ko faté mo kay mom kay bro dañoo wax rek waaye du jeex mënuloo koo jeexal bi ram jërëjëf onk dank vëre ma waakay jërëjëf waay waakay ngi leen a gërëm bu baax man Habib haps haps waaw waaye yéen ak noonu waxal suma koto yi nii toto toto gi ni dañ plie ak biiri bam métee bam métee nii ni pas moodu fall nii ñu gën a wax si biir dañ plie ak am na rakaam nag moom itam wax dëgg ne def na lu baax muy bekkaay bekkaay ñëw na moom it sax ba jooy biiri biiri ma ne la sax jarbaataam yeeg rakaam yeeg sitam yi sax dafa playa ñoom waaw kooku mooy biiri duñ ko faate mukk nag bu defe ne lii biiri duñ ko faate mukk am naa ne nag ah am soone dinañ am ay ay ay reward yu ñoo xalaat pour defal ko definitely Gambia dañ ko amé jukal, and we have to pay him back waaw dinañ war a xalaat reward I am so the guy top li fi nii you ñu ngi xalaat stakeholders yi yëpp and they are preparing definitely and you'll do something ñu ngi leen a gërëm nag wax dëgg neex halal. Thank you very much, Mr. Yeah, thank you, man. Thank you.